ndax dañ doon ñaan njekk wala ñaanum njekk déedéet euh, ñaan njekk moom defe naa loolu ku ko dégg sax danga xam ne li ñu waxoon ñun sàmm nañ ko ñun dañoo defoon déclaration wax ne ñaanuñu njekk yónniwuñu kenn loolu it ba léegi ci lañ nekk niñ déggee woon plainte bi avant ñu jékki-jékki yónnee ko Oustaz Makhtar noonu it lañ gisee seen déclaration biñ def yónnee ko ci presse bi noonu lañ ko gisee pour wax rek ne depuis ajjuma ba léegi ñu ngi yónnee ay ndaw kilifa gudul kilifa jinne woo nañu waaye liñ wax mooy duñ toog ak Waly Ibrahima Waly Seck duñu rus ñu toog mu toog loolu jomb nañ ko duñ ko def bi ci des it mooy yónniwuñ benn doomu aadama pour mu négocier ñu ci dara ñun liñ doon xaar bés bi ñëw ñu dem wuyu ji comme citoyen yépp ndax li wóor te wóor mooy tooñuñu ku tooñul nag waroo ragal waroo tiit lañ defoon ci imam Kanté loolu lañ doon tànte ci ñun te duñ leen ko may ndax nit bul nangu kenn foye la buñ bëggee ñuñ foye nañ dem uti ñi ko nangu waaye ñun même buñ ñàkkoon bay dundee cox du tee suñu dignité ak suñu personnalité ak suñu diine dañ koy sàmm imam Kanté biñ ko fi porté plainte dañoo fexee ba ut ay nit ñu ne daje nañ ñaan nañ ñu dellu ginnaaw ñun jéem nañ ko ne dañ ko bëgg indi pour mu gisee ak ñun jéem nañu pour jéem ñoo yónnee ay ndaw ñu ne tooguñoo kenn waxuñoo téléphone kenn ku juum bay paas ñu ko téléphone doo ci am lu la neex loolu it la waxaat jëme ko ci Sénégal yépp wane ne ba jonn yàlla tey santaanewuñ kenn mu def ci intervention ku ci woote di wax dañ ñaan amuñu dara luñ ciy wax kuy wax demal nga wax ak moom ba léegi ci loolu la ñu nekk amaa nag jàmm kuy woote jàmm kenn du la oo ci jàmm nga di ko euh, bañ a accepté ndax sunu diine ji ñu nekk diine jàmm la waaye xeex mbon bu xasee taxaw maslaa day dàqu moo waral fi ñu taxaw ñu taxaw fi mbir mi même bu demee ba jeex dañu bëgg ñu xam ne toogaatuñoo kenn di wax ci mbir mii parce que amul luñ ciy toog di maslaa ndax loo moom ngay maslaa sàmm diine ji sàmm euh, sunu sunu ay mbañ ci réew mi képp kuy jullit walla ngay sénégalais danga ko war a sàmm parce que ñun ñoo bokk réew mi la nit ki di wéet ci ruqam di ko def loolu kenn amul droit wax ci ndax vie privée la waaye loo xam ne génn nga publiquement def ko loolu kenn ku nekk da nga ci am xelaat kenn ku nekk nag kemtalaayu sa kàddu fa mu toll fa ngay waxee mbir mi noonu la demee ñun ak ñëpp ñoo ci bokk yam lu mu am na am yi na ko lekk mu rees ak jàmm na am yi fans ñun dañoo ut ci fans ñu àndal jëm ci yàlla lañuy ut nit koy àndal jëm ci yàlla nag bu dee benn la wala ñaar la wala ñett la ragaloo wéet ñun ragaluñu wéet ragalu ragaluñu ku ñu mere ragaluñu ku ñu xañ alalam li ñu ragal mooy yàlla mere ñu bëri na ku ànd ak yow di coowandoog yow boo génnee àdduna ustaas bi la lay bàyyeeg imam bi kon ku ñu joxul suñu cër ñun xam nañu lan mooy suñu cër nitu fokkat mosuñoo ñame te nitu fokkat duñu ñame duñu ferekante Doun yon amang yon relasyon, bun sakou ou bi bun tou, pou amang yon relasyon sot den kouten. Doun yon nyanal, si koun yon yon dara. Moussou yon yon yalatay, loul yamalew yon kouti, Ibrahim wale zek. Kip pou kou yon gouti wale lompon, yon amang yon yon ben relasyon. Soun nou penesibou bop pou la, nan yon ko respekten. Salam aleikum wa rahmatullahi wa barakatuh.